ba sécurité am pour tout le monde que ce soit cas premier ministre wala ka opposé ba ndax la fa xew nag toul ñaaw na ci deru Sénégal hmm. ndax dañu leen wàccee parce que ils n'ont pas pu assurer la sécurité des biens et des personnes quels qu'ils soient hmm. ou bien de suñu leen wàccee nag ndax premier ministre ba kese ma xam hmm. ne kon ñun askan wi dee nañu ndax nag fi ñu jëm nii ñi parti unique lañu ñu nekk di promouvoir nañu waxante dëgg. Hmm. gis nga ñii buñ bëri kàddu xam naa wax hmm. xam naa ba tey ñu ngi ci campagne bi kàddu yi Ousmane Sonko yëkkati itam dégg nañ ci lu mel ni mbirum 1000 milliards ci ab compte benn kilifa gu fi nekkoon kàddu yooyu mbaa gëm nga ko. Thierno Thierno wax jooju nee naa la du ci dóor sama sët du ci dóor sama gune. ah déet mais <laughs> premier ministre moo wax. <laughs> déet déet xam nga lu tax. am nga mille milliards nga fekk ko ci benn compte ngay hmm. dem di taxaw ci ay campagne électorale di ko fa wax ci riiru mbabooru campagne mu hmm. nekk lu grave loo xam ne sax da nga ko waroon lijjanti fekk ko ba pare teg ko ci table bi ne askan wi jël nañ huit yaa ngi nii gis nga huit milliards mille milliards yooyu mille milliards yooyu mais loolu euh, benn analyste benn spécialiste wax na ne hmm. gis nga lépp li Sénégal di dundee soo calculer li nga xam ne yëpp mooy alal ci Sénégal di dundee. Hmm. ci atum lëmm mille milliards lañ ko xayma. Hmm. ndax ndax budget Sénégal mu ngi autour nee nañ bu baax ba mu nga ci autour de cinq milliards et quelque. nekkul hmm. sept milliards yi nga xam ne moom la ñalee tegoon ndax dañoo falsifié chiffre mais kon yow c'est un cinquième du budget luy dundal askanu Sénégal atum lëmm soo ko fekkee ci ab compte mais te ñu jox la doole réew mi yëpp donc justice bi yaa ko yor. yow yaa yor exécutif yee président de la république nekk premier ministre mais soo ko demul jëli ba pare teg ko soo wëree di ko campagne ne da nga bëgg majorité pour mun ko jëli mais nañ xam ne kon ñun suñu yaakaar tas na ci ñoom dañ waxante dëgg c'est extrêmement grave loolu du lu ñuy di ko dambaa mbaaloo ak di ko hmm. campagneo fekk sa askan nekk ca mbënd ma fekk dund bi cher fekk ñëpp sonn faju amul est ce que xam ngeen ne dëkk bi fi mu ne rupture de médicament yaa ngi rey maladie nga wëcc mille milliards mhm. mu tëdd fee nga war di di Sénégal di ko wax naan fekk nañ fa mille milliards nañ waxante dëgg ah, ah? Mhm. Euh, waaw honorable ba tey itam ci kàddu milliard boobu dafay metti sama xol parce que moom jox nañ ko doole joo xam ne war na mën a dem jëli huit mille milliards su amee moo tax du ma ci dóor sama doom mais nee na que dañoo tëralagul maanaam lu mel ni wàllum haute cour de justice ngir daal di maanaam jël koppar googee est ce que dem dañuy xaar ba daal di tëral ab kuréel gu nga xamante ni ñoom ñoo ki seeti ndax itam milliard du ay caaxaan est ce que amul yoon tax mu daal di. fonk itam la nga xamante man daal maa ngi ñaan yàlla maa ngi ñaan yàlla jàppale ñu ba ñu ñu dem ci assemblée en tout cas man bëgg naa ñu wax rapidement balaa ngay jeexal sa émission ñu wax ci ñu wax ci ñu wax ci campagne législative yi mais man en tant qu'investi dans le département de Thiès. bu waa département de Thiès ak yàlla suñu borom dogalee ak ndimbalu yàlla. ba ñu dem ca mm-hmm. assemblée ba. ñu lépp luy intérêt Sénégal. fa lañ mm-hmm. koy taxawee ndax moom lañ mos di xam te def nañ cinq ans. assemblée noonu lañ fa taxawee. donc man je dis que. je mm-hmm. dis que bu ñu taaf bu ñu taafantoo haute cour de justice. haute cour de justice institution boo xam ne la. dafa nekk ci charte ndeyu réew mi nekk ca charte assemblée ba. assemblée bu bees bu dañuy teg ña fay toog dañuy teg ña fay toog ñàkk fa majorité mënul tere ñu teg fa ka fay toog am fa majorité mënul tere ñu teg fa ka fay toog man danger bi ma gis kay mooy moom bi ut cent cinquante député te doon wax ne euh, mat muy wër di wut sa majorité écrasante te doon wax ne majorité écrasante jigul nguur barki démb dong ba mu nekkee ca ca ca ca ca opposition ba la ko doon loolu moo doon discours am loolu moo doon discours am waaw mhm. waaw xam naa fa lañ dem tey jii nga bokk te ñu def ca tëdd liste fii ci Thiès ci coalition maanaam sàmm sa kàddu intercoalition Takku Wallu tey jii bu ñu gisee itam lu mel ni ay maanaam mooy ñi fi nekkoon démb opposition ànd ak maanaam eh, ñi fi nekk tey loolu est-ce que du benn gàcce sàmm sa kàddu ànd ak waa maanaam Benno Bokk Yaakaar di battre campagne loolu lan lay wundu en tant que des hommes politiques yoo xamante ne kat démb yi doon xasante seen biir di di waxante yu ñaaw tey ji ngeen ànd. waaw mais Thierno xam mhm. mhm. lëkkaloo ndax ndax euh, mhm. euh, système électoral mooy mode d'élection ah, moo indi raw gàddu ci biir département raw gàddu boobu ñu institué ci département bi nga xam ne nit ki bu la rawee benn kàddu yenu ñeenti député département de Thiès hmm. bu la mayetee nga mën a jël yow ñeenti député yooyu ànd ak ñeneen ku ci nekk am ci benn député ba bu ngeen paree mën a représenter ma hmm. département ñu waruñu warul ndax yow boo waxee loolu au même moment gis nga leen ñoom ñu ngay roj rakkaay ba nga xam ne moo leen contrôle démb ak barki démb di leen dugal seen biir kër man ku ma laaj dama lay ne ña leen doon saaga ba ñuy wax ka euh, dossier ak saar ya tey ñu nga hmm. biir seen biir kër ñu jox leen fa ay cër mais loolu moo leen war a gën a jaaxal kay que ñun ñi nga xam ne dañoo wër ku nekk am sa coalition ñu ni nañu def intercoalition lëkkaloo ci biir département de Thiès pour la pour wuti député bu ñu paree ku nekk sax ma ñun sàmm sa kàddu lañ bokk ñale takk wàllu lañ biir liste ba ku ne am nga si ñaari député te man na gëm naa ne waa sàmm sa kàddu ak waa takku wàllu fii ci Thiès tànnal lu ñu leen ay candidat yu yaa fuus mhm. tànnal luñ leen ay candidat yoo xam ne ay doomu gox bi ñoo xam ne xamuñu leen parce que nag suñu mhm. tête de liste muy tudd Moustapha mbay bokk pur dañu xam waajuram ah imam Ndiassé Mbaye waa Thiès yëpp xam ko mhm. kon ku xam ne doomi kooka mënut a na kall lu dul la mu man nag dama dëkk Thiès nekk fi di jaayante ak waa Thiès def naa cinq ans assemblée te taxaw naa fa taxawaay boo xam ne gisuma kenn tey ku dalee ko euh, euh, euh, nu mu tuddati Kayar ba Touba amul benn dossier bu fi am conflictuel bu ñu leen liggéeyu donc ñun c'est pas que dañoo lëkkaloo contre alliance contre nature c'est une mhm. alliance pour aller chercher des des des représentants du peuple te soo mhm. jëlee ñeneen ñaar ña ca des kenn ki Mor Diouf la dëkk Thiès dëkk comme naa mosu leen mhm. ko dégg ci yeneen de déggu leen ko si Jombe keneen ki c'est une jeune xale la c'est une jeune fille qui habite à Babac kon dañ leen wutal ay investi yoo xam ne ñu fekk ñoo xam ne dañu leen ne dañoo takk rip ba kenn waru leen laal ñu ñëw ne nañu lëkkaloo pour population pour pour pour département de Thiès da leen nañ leen yóbbu assemblée. dañoo dem hmm. wuti ay dignes fils du département de Thiès lëkkaloo nag takku wallu sàmm sa kàddu pour ñooñu mën a dem représenter dignement le département de Thiès à l'Assemblée nationale. nañu waxante ne ñoom de tëddal hmm. hmm. moom Macky Sall nekkoon fi njiitu réew. quelques mois après mu daal di ñëwaat Macky Sall dekk nekk itam tête de liste takku wàllu est-ce que maanaam gaawul ci un ancien président ñëwaat nekkaat maanaam ci langum politique man daal loolu soo gisee boo gisee waa waa takku wa <laughs> ak yi il faut nga wax ak ñoom ci loolu mais su ci waxee. mais yéen a bi quand même a bokk bi. <laughs> xoolal boo gisee waa takku waa waa xoolal <laughs> non non dama lay expliquer ne la. Macky Sall tête de liste Macky Sall tête de liste takku wàllu la. takku wàllu. Mhm. xam nga on de respect pour pour pour euh, euh, ñëpp nag ak ak Macky Sall ak euh, am na ay erreur politique yu fi mos a am man xam nga man fu ma mos a erreur politique mosuma romb fii ma koy raay raayal. ni may mhm. donc takku wàllu ñoom. seen tête de liste mais li ma gëm li ma gëm ceer na mooy waratuñu am président de la république ñu koy bundu xatal bu pare ba di ko mm. menacer ne fii soo fi ñëwee ñu yóbbu la euh, fa mbaxane nekkee benn wala ñu tej la parce que ñoom duñu justice ñi koy wax est-ce que ñoom ñooy justice mm. comme duñu justice nag waruñu woon mën a yeewu naan président de la République xam nga loolu def nañ ko fi Karim Wade ñu ko doon def démb barki démb de ba fi Macky Sall nekkee ñu ko doon def Karim Wade ne su fi duggu see dañ koy tej parce qu'il devait payer une amende xaw ma ñaata cent trente xaw ma ñaata milliards te su dugg see ci réew mi ba Karim bëggee ñibbi si loolu lañ ko te lañ ko teree dugg si fii mais est-ce que loolu war na mën a nekk Sénégal dañu war a fexe ba ku fi mos a yor réew mi boo paree nga mën a dëkk ci réew mi ne ci biir réew mi nekk waa réew mi bu ñu amee conseil ñi génn nga wax nga nga nga conseiller leen ndax nag moom ci ñi leen jàppale bañ falu la bokk rek moom ci ña leen jàppale bañ falu kon tey jii bu bu bu ñu ñëwoon ci moom di ko wut sax eh, eh, conseil yaakaar naa ne dana leen ko jox ndax moom ci ñi leen campagnal la bokk moo leen ubbil bunt yi bañ falu te dëkk bi nag metti na torop ah mais loolu foo ah? man man loolu tey jii yow foo ko teg ab ah! scoop la boo joxe wala wala teg ay ay nga ni fan la. ne que ñoom Macky Sall moo leen jàppale ba ñu fal. dañ ci non jàppale na leen kay ah du Sénégal yëpp a ngi riir ci ay. Hmm. ay jaabante yu doon am entreprise au bas kër Macky Sall ak fi di ko riir ba léegi donc mën nañu wax ne moo leen jàppale kon tey bu ñu réew mi tolloo fii de nag Macky Sall naa ne ba léegi intérêt rek moo ko ñor hmm. xalaat naa ne kenn benn. sénégalais de quelque bord qu'il soit amul intérêt Sénégal daanu ci guuta ak dugg ci guuta ak coono bi mën a mën a gën ndax nag coono yaa ngi ñëw kon tey bu ñu fekkoon ne doxal nañ loo xam ne dina tax ba un ancien président de la république addina bi yëpp looloo fa am dans les grandes démocraties les anciens présidents dañuy bokk ci ñi nga xam ne bu réew ma méttee ñu xelal ña fa doom mm-hmm. te foog naa ne ñàkk nag am possibilité boobu moo ko dugal ci ne xaaral bu boobaa ma dem bokk élection ah pour ñu wuti renforcer taxawaay ya ca penc ma pour ñu bañ a mën a jël sénégalais yëpp bëgg leen a jël dugal leen ci benn guta parce que nag nañ waxante dëgg gis nga buñ toogee ba jël mm. jox leen seen cent cinquante député boobu dinañu am mm. assemblée nationale de mouton de panurge maa la ko wax mm. mouton de panurge mooy toppe yoo xam ne lu ñu leen wax suba ba ngoon jot moom la ñuy def honorable xam naa itam ba la ñoo opéré ci programme hmm. waaw euh, waa xam naa bala ñoo ñëw ci sa programme un benn laaj dégg nañu ko mel ni Ousmane Sonko di junju wàllum loi d'amnistie bi biñ fi voté woon ni que maanaam moom bu ñëwee da koy abrogé itam daal di fexe daal ba décadaat la nga xamante ni moo fexe woon naka nga jàngatee mbir yooyu noonu mu nekk lu jàll suñu ginnaaw waaw dégg naa déclaration boobu ca Ziguinchor dégg naa ko foog naa Ziguinchor sax la ko waxee en tout cas dégg naa ko ci fan yi dina abroger loi d'amnistie bi ah ñu ngi xaar ba gis man daal gis nga man les promesses de campagne daal euh, fi mu nekk dama gis ne Sénégal promesse de campagne yi euh, dafa dafa dafa dafa dafa nekk loo moment de campagne moom am na yoo xam ne boo koy wax lu sérieux noonu lu sérieux ni loi d'amnistie ak li fi xew Sénégal Thierno waroo dem ba digi campagne électorale nga di ko fa digi ndax moom mhm. digee yiñ fi digee woon ñoom ñëpp balaa ñuy falu ana ñu gisaguñ ci dara de donc ñu ngi ñaan yàlla dige boobu nekk parce que man gëm naa ne loi d'amnistie bi dafa bokk ci seeni ay accord man ñu ngi xaar nag accord ya bés bu génnee loi d'amnistie bi ñu noonu tëggu ko taf-taf de ndax nag ku ci nekk ci ñoom foog naa ne tey bu ñu lañartee li fi xewoon ku ne am nga ci part de responsabilité te nag askanu Sénégal ak victime yi bëgg nañu ñu dimbale leen ba ñu ba ba ñu mm-hmm. yi mën a mën a mën a reposer en paix parce que dinañ leen rendre justice que seen famille yi ñu rendre leen justice loolu nekk na ci li mu wax ku fi toog en tout cas ñun de bu ñu yóbboo assemblée nationale ñu nekk député département de Thiès bu neexee yàlla dinañu ci taxaw ba seen engagement yooyu ñu jël ci campagne bi ñu ngi koy mm. noté benn par benn bu boobaa dinañ ko jëfe ci ni wala ca nale loolu moom lu leer la lii nag élection yi